laaj rek ban ban yoon la ki ngay jënj opposé tubaab bi ba keroog mi génn àdduna bu ñu jógee ci géej loolu dama la laaj billaa aleyk ban ci ay mbindam la opposé tubaab bi lu mu mën a doon ba keroog génn àdduna lan sëriñ bi gis nga euh, àdduna bi nit ku ñëw dafay bàyyi mu jàll mais tubaab dafay bind gis nga Bon Scott bu mag bu ñuy wax David Robinson da cee sonn ci li ma lay wax nii dem na fu nekk pour taatam xam-xam bi am na yoo xam ne mi ngi ci archives yi waaye am na yoo xam ne mi ngi ci archives yi gën a mag archives yooyu rawatina fii en Amérique boo demee Columbia University di fekk ay archives yoo xam ne ñoo gën ñoo gën a xóot fopp archives yi nekk yi nekk fële Sénégal li ma la mën a wax mooy di ci ci ferland maanaam ferland en fac en fait lan la opposé tubaab bi bu jiitu mi génn àdduna lan nee ma benn rek après ñu soog a waxtaan bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dama doon waaji tëdd sax waaye audio yi ko dégloo laa lii moom mënis cee ñàkk tontu bala maa tëdd làmboo na goo xam ne waa ji ci wax réere na ak ñi ñu baax ñu fi newoon waaye itam làmboo na réere xam ne waa ji réere na ko diine ci boppam lan mooy diine ak sax Euh, lislaam ji ni ci àdduna ji ban la ñi ci gën a bari waaye bala ñoo ñëw ci loolu ñu fàttali rek loo xam ne sukki doon na ko wax al imam sukki tajuddin sukki ci huitième siècle bi sukki dafa waxoon ne wa fil mubtadiati wa fil mubtadiati la siyama al mujassimatu ziyadatun la tujadu fi gayrihim وهو أنهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم والشهادة على من يخالفهم في العقيدة بما يسوءه في نفسه وماله بالكذب تأييدا لاعتقادهم nee na gaa yi biddaa yi rawatina nag ñi nga xam ne ñoo jàpp yàlla aw yaram nee na moom ñoo rawati nee na ñooñu dañuy dañuy jàpp fen dañuy dañuy gis ne man nañoo fen ngir dimbale ngir ma ñu ne dañuy gis ne itam mën nañoo seereel koo xam ne dañoo wuteeg moom pas-pas loo xam ne da koy naqari ci boppam ak ci alalam te jaare ko ci ay fen fen woowu ne li ci jublu rek mooy jéem a seen pas-pas ba nga xam ne ca la ñu ne nga xam ne sax àgg na ci ne dañuy jaamoo yàlla fen moo tax mu ne wa taqarrubuhum ila llahi bil kadibi alayhi bi fi nayli minhum nee na fa haulaai laa yaxillu li muslimin an yactabira kalaamahum nee ñu mel nii dëgërul sax ab jullit faale seeni wax kon loole rek moo gën a confirmé wu ci waxi waa ji bala maa ñëw nag ci li waa ji tuumaal sëñ bi ma njëkk leer la waa daa xamul sax lan mooy diine ci boppam ndax moom fi ne lislaam ji ne Sénégal defe na ne France a fexe ba mu ne fi te xamul ne lislaam jii muy almadhabul ashari ak alfiqhul maliki ak tasawuf réew yu baree bare bari la nekk nii mu nekk Sénégal foo xam ne sax am na ci yoo xam ne France mosu faa jaar kon ñàkk jëm ñàkk xam lislaam sax moom a njëkk yéem moom nga xam ne moom nii mu mel Sénégal defee na ne Sénégal doo nga mel nii nga xam ne kii li ñu xamu ci dara dafa dëgëru fi rek di wax ku defee ne al madhabul ashari ak ak al fiqhul maliki ak at tasawuf yooyu moo ne Sénégal mooy lislaam ji fi ne ku defee ku defee ne senegal dong la ne wax dëgg yàlla yow sax da ngaa war a wax ku defee ne tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñi yi dong ñoo ko def te ci àddina boo waroon gis ñu bind lu bëree bëri ci tagg bi ci réew yeneen yi réew yoo xam ne senegal Sénégal dara. yow defe naa ne da ngaa a wax ànd ak ne sax li muy wax du dëgg yëmuñu rek yëmuñu woon yoon doonte nag teg yoon bi lu am solo la surtout sax sëriñu tasawuf ci ak réew yi ñu mën a ne ak ci ak sax ñeneen ñu dul waaye boo fànni xam-xam yi goo ci dem muy tawxiid muy fiq muy tasawuf muy naxu muy miraas muy aruus muy muy muy aruud muy luxa muy ci dem rek fekk sëriñ Sénégal yi taalif kon kii daa xamul sax lan mooy lislaam wax ci boppam la war a def ku defee ne lii muy tuddee lislaam Sénégal Sénégal rek la ne ànd ak ne moo ëpp ci àdduna bi wahabiya ak xeet yooyu moom ay minorité la kon kii ci diine la war a la war a def waaye li xorom mooy umpale bu mu umpalee taarixu Sénégal dafa mel ni bu ma déggee waxam nee na sëriñ si dañ doon bañ ca njëlbeen gi waaye France daa am fu mu jaar ñoom bañ mujj ñoom ñëpp ñu mokk ak ne sëñ bi sax euh, nangu gu gu mat sëkk la mujj nam tàmbale woon ak ni mujj du benn dinaa ci delsi waaye ma njëkk leeral ne Sénégal sëriñ su doon bañ amoon nañ ñoo xam ne euh, daanañ jihaad ku ci mel ni ma ba joxoog Seexu Omar ak ñu mel ànd ak ne ñooñu ba ñu itam ñoo sëriñ yu baree ko àndaloon àndoon àndoon ku ci mel ni Maba Jaxu ba muy jaxaat Saalum man mi sama maam demoon na sëñ libaas mooy mooy waajur sëñ ma ñaw maam war sax moo jur poroxaan mu njëkk a gisee sëñ ma ñaw ci taarix foofee la woon kon jihaat mag ñi moom xamoon nañ ko la leen ci génne kay xëy na dem nañ ba xam ne kii ay këru la yor ak gànnaay yoo xam ne ñoom mënuñoo jàmmarloog moom te jixaat nag boo demee ba euh, noon bi ëpp la doole boo ko bàyyee amoo bakkaar seet noo rawale diine ji loolu ma la fexe ba tàggat nit ñi yar leen ba diine ji raw loolu tekkiwul ne dañuy bañ a jihaad waaye dañoo doxee xikma ndax lislaam am na fu muy toll jël gànnaay gi di jàmmatloo yéefar bi mën naa am du gën ndax boo ko defee itam dañuy rey jullit ñi te la nga doon bëgg mën naa am du sotti fexe ba créer ay daara fexe ba rawale alxuraan rawale xam-xam bi rawale lislaam ba période bii jàll gën di xekk ba sax la neen wàllu gànnaay gën a taxaw mën naa jig-jig dóor la benn boobu jeex kooku fexe ba euh, ginnaaw doole yi tolluwut te jamono jooju lislaam may na la nga bañ a songu jamono jooju ra xekma bi nga xam ne mag ñi doxal nañ ko ba créé ay daara fure ak i jàkka wasaare lislaam tàggat nit ñi ba bañ mën a weesu période boobu mane ne la loolu moo gënoon di xekma lu baree bari kon ñàkk xam rek moo tax waa ji di waxee nii euh, ma ñëwaat ci beneen vocal li gën a xorom ci waa ji nag archive nangam nee nañ nangam te du wax lu leer nag xam nga nit ku dul wax dëgg doo dëgg du ñeme ci li nga ne. bu fekkonte ne ñeme na ci li muy wax danaan tubaab bi daa bind ne nii la sëñ bi wax waaye li ma xam bu ma ko waxoon nag waxi tappale yoo xam ne jëmut jëmut fenn ànd ak sax nag <laughs> bu dee lu bind rek defe naa ne mën ngeen dem ci euh, document xam fër nag fu ne nag yéen a ngi ko bi waaye am na lu mu bind ci Muhammad ibnu Abdul Wahab defe naa euh, mëneen ngeen a dellu tamit ci George Maqdisi nga moom itam mustashriq la woon boo xam bind na ci ibnu taymiya euh, da ngeen di dellu ci almasailu tabriziya loolu nag maxtuuta la mi ngi ci maktabu zahiriya ci dimashq numéro bi mooy mooy douze onze quatre-vingt-six moom itam bind na ci ibnu taymiya bu dee tubaab bi bind na rek ab tubaab bind na foofu ci ibnu taymiya dem ne na la mel juuti koy waxe bal sax ab xaadir la woon Ibnu Taymiya ci waxam ci waxi kooku am na yeneen yu wax ci moom tamit ginnaaw tubaab bi bind rek bind na rek eh, ànd ak ne sax yow da nga waxul lu leer xanaa da ngay wax loo xam ne yow dana dëggal li ñuy wax waaye wax loo xam ne amu ci benn preuve da ngay tarar yi dem rek kon campagne gi la ñuy gi la waxaabi yi campagne ngir nga waxal leen lu dëgg ngir ñu wayafal suñ mag ñi loolu da ngaa amul xel waaye yow sax victime nga dafa mel ni Euh, may bàyyi xel ne nag gis naa ci téere sàngam loola du awla yi dangaa war a xool ba xam la borom téere bay wax dëgg la am déet maanaam ma neexee ma ne la gis koo xam ne ab sénégalais la dib gëstu kat muy Serigne Mourtada Fati Fall mooy waajuru sëñ Mourtada mi mi mi sëñ sëñ Ahmad Mbacke bu daaru te moom la mu bind ci firnde la ko waa demee <laughs> moom lam la wax moom mooy sëñ bi nam tàmbaloon mos cee deltu te loolu ñi maandu ñëpp moom lañ xam xam nga boo naan sëñ bi daa deltu ginnaaw sëñ bi noonu doon waxe sëñ bi man man mas ngaa génne ci mbindam mu ne nañ song tubaab bi avant muy dem ci géej gi bal sax Lat Joor ñoom ñi nga xam ne sax ñoo doon waaji song tubaab bi ñoom daleen ci doon génne te booba booba ci géej gi est-ce que sëñ bi daa changé langage ba nga mën ne moom nam doon waxee sax da koo changé ñaareel bi itam Euh, sëñ bi mësta génne ci loxo tubaab ba ni mu fi jógee moo xam Ceyeen la moo xam gànnaar la moo xam euh, al iqamatul jabriya fi Yurbel naka jekk sëñ bi daa mësta génn sax ci loxoy tubaab bi xanaa bu fekkee moom daa signé ne ne nangu na lu tax bàyyiwuñ ko kon bu fekkee li ngay wax dëgg la koo xam ne misaal tubaab bi mësuñu ko wóolu ba dañ koy surveiller def ko résidence surveillée surveillée nga xam tubaab sax nanguwuñ mu dem fa aji sax nanguwuñ ko mu def ko te sëñ bi la koy faral di wax wa annahu aqa jismi an ziyaratihi laakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru te wax na ko ci yeneen bayit sax yoo xam ne euh, bokkute woowu ci yeneen xasida ginnaaw koy jàmmoon ak ñoom te nee nga lan moo tax bàyyiwuñ ko ma ñëwaat ci beneen ci duur yu mag yee mag a mag nga xam ne waa ji wax na ko mooy sëñ bi ni doon waxee avant gii gi ak ni muy waxee ginnaaw géej gi du benn nga xam ne aw duur la wu mag a mag woo xam ne umpale moo ko yóbbi ak ñàkk xam dara ci xasida sëñ bi sëñ bi naka jekk euh, chrétien ay noon nag yooyu la leen doon wooye dawud wax ne nañ leen song itam avant géej gi nag loolu daw ko wax ginnaaw géej gi itam ay noon nag ñu wóotee dëgg ñooyu la leen di wooye ba tey ginnaaw géej gi dama ci jël misaal rek ci xasida gu ñuy wax wakaana xàqan bokk ci xasida yi mu tey lu ginnaaw géej gi boo ci demee da gis mu ne radattu billahi wa bir rasuli man xaalafa al xaq wa niltu suuli nee na ci yàlla ci kàttanu yàlla ak daraja yonent bi ci laa delloo maanaam fexe ba ñi nga xam ne ñoo ma doon song te wuuteeg dëgg ma delloo leen ci loolu laa amee sama aajo maanaam sama aajo daal ak euh, delloo gi mën a delloo noonu yi ñi nga xam ne ñoo wuteeg dëgg ci kàttanu yàlla ak daraja yonent bi la ko amee kon fii sëñ bi ñu wuuteeg dëgg li leen di wooyee fii yow mi ne waxiwut na neen maanaam amul fu mu fu mu fu mu songee ci seen kaw ginnaaw géej gi. mu yóbbuwaat li ci weneen bayit ci wakaara xaqan ci misaal nee na ayyadtana ala al ida fa ulibu wa li siwaana saagirina nqalabu yow yàlla yaa ma ci kaw noonu ba bañ not leen nga xam dañoo wëlbatiku jëm ci koo xam ne du man ànd ak toroxte nga xam ne moom limuy muy waxee moom mooy tubaab yi ci boppam bàyyiwuñ ko ci seen coobare waaye da leen a not kon ñi ngay wax naa da leen ci seen kaw ginnaaw géej gi eh, wenn bayit ay bayit ngi wane li ngay wax dara du ci dëgg boo demee sax ci téere sëñ eh, Murtada Faati Fall ci fi mu tudde an an nasrul aziz page deux cent vingt six jëm kaw indi fa ay bayit yu mel noonu yoo xam ne bi sëñ bi demee ba gañe tubaab bi indi fa ay bayit yu baree bari yoo xam ne jot na fa leeral na li ngay wax dara du ci dëgg bokk na ci bayit yooyu rababtul ila billahi wal mustafa nabi maanaam noonu maa ngi leen dàkku ci daraja yàlla ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam furaada wa masna adbaru laazamul jarba kon wii bayit boo ko xamoon li na euh, sëñ bi dalaatu ci seen kaw ginnaaw bi yaakaar naa ne kon da nga xaw a teey euh, même sax doon nañ ko fi jéem fexeel ngir doon nañ ko fexeel ngir mu mu génn àdduna looloo tax sëñ bi nag kafayta ni xit lan araada safka bayit woowu bi ko wax ci euh, xasida gum tuddee gum tënki waa ma waa ma maayen fayam ko fa fi moom sëñ bi not noonu yooyu lay xooy waxut ne daa jàmmoog ñoom wala daa siñe ak ñoom waxut ne daa siñe ak ñoom bokk qaharta liyal aadaa yaa qahaaru yaa man lahul umuuru yaa jabbaaru mafatihul bishr notal nga ma noon yi maanaam daa wax ne dañ leen a not loolu nag defe naa ne yow mi naa waxatul leen naqari seen ginnaaw wala dul seen kaw da ngaa xamul dara rek ci ci mbind bi xëy na moo la ko yóbbu da ngaa xamul moom liggéeyal liggéey bi mu liggéeyal yonent bi la wax ne moo noppiloo euh, moo noppiloo tubaab moo noppiloo ñi ko ñi doon xëccoo moom ak asinoonam xidmatu xayril aalamiina askatat man naazauni wa idaaya sakatat euh, xaaba ila llahi taala maa man aanahum kon sëñ bi noonu la ma sa waxee ci ñoom noonu yàlla yi sooy nañ ak ànd ak ñi nga xam ne ñoo leen doon dimbali dimbali suqta lahum niyatahum wa makrahum duuni seen pexe yaag seen yéene yëpp danga leen koo delloowaat maa ngi ko jëm ci ñoom adim liyaa qadiru qahrahum yow yàlla saxalal ma ma not noonu yi sëñ kon daa wax ne daa not noonu waxut li waxut li ngay wax li ngay wax dara du ci dëgg loolu mi ngi ko wax ci diwaanul fulkil mashxuun moom fi mu wax ne moom la noonu yi du li ngay wax ci alxuraan la wax ne moom la xeexeek ñoom ak ci yonante bi waajahtu aadaaiya bil ayaati mujahidan biha bil altifaati ci alxuraan la jàmmaarloog noonu yi di ci ko jihaade te gëstuwut kon sëñ bi la ngay wax da nga lu bari mu ñëwaat ci beneen vocal boo demee ci laysal birru tamit da seetlu ne euh, te sax du moom dong boo jëloon yaa jumlatan qad xallasu wa dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu toujours sikkal pas-pasu chrétien yi ak bi nga xam ne ci la tubaab yu bari newoon ci la sëñ bi masa nekk naka jekk ba ci laysal birru loola rek nga fay fekk euh, ak mooy tandikuloo sax taalibe yi ñu jéng jëm ci chrétien yi waylun liman maala ilaykum mudbira an rabbihi wa ankumu lan yasbira wax na lu bare bëri ci wane ne chrétien yi nekkuñu ci dara ci xasida googu lay sa شد عقابه على من ثلثوا وفي هدى آياته ما بحثوا bëggul ba na ci ñi nga xam ne dañoo jàpp yàlla ñett te it gëstuwuñ ci njub gi nga xam ne moo nekk ci alxuraan kon sëñ bi ci lii la ne woon mooy te dikkuloo ñi ñi chrétien yi ak wane ne néew ñu ci pas-pas bu baax laysal birru moom daanaka xasida gi lu bare bari sax ci wàllu googu da koo jël maanaam wane ne pas-pas pas tubaab yi Euh, fenn foo xam sëñ bi mas naa wuuteeg na mu doon doxe waa ji soow na ba sonn mënu cee génne lu koy nuru waxuma ne sax lu ko lu nuru loolu mënu koo génne nit nag booy wax bu fekkee Atoumane Samb wala keneen di laa jël ni sa ginnaaw di wax nga jël combat bi au moins waroon ngaa mën a wax lu su mën a jàpp waaye wax nga ba daaneel lii ngay wax ni lu ci mën a sukkandikoo amut loolu mag maamu jot rek di sarar yi dem <coughs> asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa bureau bi yëpp waaye sëñ Mourtada ñu ngi lay nuyu di la ziar waxa bis de fen moom mooy ñaareelu turam daanaka dafa mel léegi moom jombatuñ ko moom te nag dëgëral seen mësëb ak itam ñi nga xamante ni daal sopp nañ seeni sëriñ xiima gan ko jox daal ñu dindi ko jaral na leen fen jaral na leen lu ne te xamuñu ne loolu moom day day gën a wàññi seen daraja rek te itam day gën a yokk cofeel gin amoon ci suñ mag ñi rek wax dëgg fa yàlla eh, ni ma ko faral di waxoon benn mbokk rek nee naa ko même yi ni yi ni nettali ci histoire ak yu mën doon buñ jëloon yépp ñu paqueté ko ci benn mbuus sànni ko géej itam du du wàññi benn zarra ci eh, cofeel ak xiima weg gin wegee wegeel sëriñ bi ndax xanaa li nga xamante ni kenn werantewu ko moom kenn mënut to fexe fexe ba effacé ko muy lim bindal boppam loo xam ne ñëpp d'accord na ne lii moo ko bind moo xam téere yum jàngale la ci xam-xam moo xam euh, julli ci yonent bi wala tàgg ko moo xam may may yu ko yàlla defal mu ko sant moom ci mën di doon yii moom kenn werantewuñ ne moo ko bind ci loxoy boppam loolu nag ku ci xam xasa xam sëriñ ba moom ay nettali sa daanaka da nga koy wan ginnaaw moo xam yu wér la wala yu wér moo xam yun yun koy aj la wala yun koy wàccee bu mu ca man di doon yow bu yoree alhamdulilah bu yorul ñoom ñoo xam waaye defe naa li nga xam ne kenn weranteewu ci moom tam bind ko nga xam ko ci mbind moom yaakaar naa loolu moom kenn mënatut a <laughs> naan day génneeg day nangam te mën a fen gi mën a mooy rawati dox gi dox ci maayil nit ñi naan waa am na yoo xam ne kenn mënu koo wax fii ñu nekk te ba léegi waa ji li koy laaj waxu ci dara te du ci wax dara incha allah waaw moom kay xam naa mu ngi noonu rek nit naan yedd yërëma ko gën daal defe naa ne moo leen dese bu fekkee yii moo leen dese moom ndax ñoom toujours rek li ñuy dox mooy xiimaay gi nga jox sa sëriñ toujours nga wàññi ko boo xoolee saaga yi ñuy saaga mag ñi yëpp ak di leen di leen bëgg a bécc gi rek naa nga bëgg rek wegeel gi nga ko weg toujours boo dee ba saaga yu bari dootoo ko wegeeti su ko defee ñi nga xamante xañ na ñu oyof kii lan pas-pas yooyu rek daanaka mooy seen jubluwaay waaye yaakaar naa ne euh, bëri ko ci mbartal moom boo ko boo ko jiimee téye da ngay ànd ak moom daanu rek incha allah. waaw <laughs> ah, ñoom de xam nga li ñuy formé ci nit moom mooy na nga fexe a sant ndax it nag seen nguur gi it boo xoolee daanaka ci ay fen la sosoo moo tax fen moom du faaw ñu man koo maanaam waxe bi bu mënta fen amul moom parce que comme seen lépp ci fen la sosoo moom ñoom faaw nga mën a fen fenal yàlla nga fenal yonent bi waaw fen rek moom faaw ñu fen rek moom